Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf xamoon nañu ne am pecc munta neexate àndu ca kum tëgg traque de bien mal di topp gi ñuy topp teranga julewul la jaaxaloon ñu bari moo di ñi ñu ci singili ana fan lañu ko teg ndekete dafa am nu ñu leen yoole ñooñu observateur xam na leen journal bi yéene kaay bi nañu ko nguurug Abdoulaye daanoo ña newoon ca wetam tabako fa dem ànd ak Macky Sall ñoo ñee ngir neexal seenum nekk ca wetu Macky Sall ñoo yoolee gars yi parti démocratique yi ñoo xamal ñi yëngu ci wàllu yoon ne leen ma sàmbaak ma dem ba yore nañu koom ñu dul jeex lii waral waa ku répression enrichissement illicite jug singili ñenn ñi leen a yoole dañoo ba kenn ci ñi ñuy toppee teranga ak Karim Wade doomi Abdoulaye Wade ci la ko ay awakaam demaloon ca kanamu chambre d'accusation ngir bëgg ñu nee na topp mbirum répression enrichissement di toppee teranga julewul loolee samb d'accusation ba defu ca dindiwu ca nee mënu ca dara wal nañu Karim Wade ak ëllëgëm mi ngi gën di gàll direct info moom it xëy ñun ci leneen lu gàll góose di koofar foor yi ci réew mi yéen bi nañu koofar foor desatul ci réew mi ne jamono ji ñuy toll ci élection présidentielle yi ci premier tour bi deuxième tour bi mbooleem du woni koofar ci réew mi jënd nañu ministre yi Macky Sall nekk ci nguuram te amee ndombal tànk faw dañuy siiwal seen teranga xibaar baa ngi ci observateur yéenekaay bi projet de loi ba koy jëmmal samp nañu ko mu di déclaration patrimoine journal bi ñu mu di Moustapha njiital assemblée nationale di Aminata Touré premier premier questeur assemblée nationale ku ci nekk ci ñoom li nga toogaale ci teranga di ko siiwal ba ñëpp xam ko njuuj njaaj lu ci am lu mu néew néew ay daan dana la ca fekk daan mën naa yegg ba ci ñu tekki sa ndombal tànk tànk tànk mbagg ak mbagg kurpañ bu dikk rek delloo populaire jàppal tànk Aminata Touré ñi farek procureur de la république fa ñu toll gannaaw ba avocat Aïda Ndiongue yi génnee ñaawlu génn procureur de la république ba noppi tuumal Aminata Touré ne moo nekk ci ginnaaw ñuy tubayul Aminata Touré tontu nañu la Sénégal ne ko booba fekk na coordonnateur parti démocratique sénégalais di Omar Sarr ànd ak jigéeni parti bi démb ci Serigne Bassirou Gueye di procureur de la république bi ci la ñuy yendu wàllu yoon ak yoon naa njaw mu ngi cee desandi xambin ba léegi ñu ne la ci enquête dina kay xëy dikkee journal bi ñu ab notaire ngi bu ñu naan Moustapha Thiam ma ngay am ak yoon ne jalgati ci wàllu koom toll ci ñaari milliards ak genn wàll la koy toppee ki yoon doon topp xam na léegi fan la mujj ak moom mu di Luc Nicolaï dina kay nañu tribunalum Dakar siiwal na démb li mu dogal ci fekkee du ko tëdd ñaaree lay tëdd wal fajar nañu yoon di justice gën naa surxal Luc Nicolaï ci kambu gi populaire nañu Luc Nicolaï day desandi ci kaso ba ba weeru octobre observateur nañu juróom-ñeenti weer a ko dese ci kaso bi na ñaari at la war a tëdd te jot naa tëdd at ak ñetti weer ci li mu yëngu di wàllu lamb ca laa jëm ak Eumeu Sène borom tay shinga dof du weer mi dalal jumb taskatu xabaar yi ci fi muy tàggatoo lenn ci kàddoom moom Eumeu Sène ci observateur muy xamle ne fan ak benn ci weeru janvier Modou Lo na taxaw ma ne ragaluma Eumeu Sène ne Modou Lo saa yu ñu dajee fexe mooy nu mu ma merloo waaye dafa war a xam ne man fëkk yóbbuwuma ñu fekkaat ko ci suñu lamb mun nañu fa combat diggam ak Modou Lo ku yeex doo gis jël ba populaire nañu waaye yu fi yamul ci loolee ne démb ci ci wàllu boxe entraîneur am ci wàllu boxe Eumeu Sène da koo dóor mu kawte la Sénégal ni ñu Eumeu Sène yóbbu na ba ardo